والبركاته اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والصلاة والسلام على عين رحمة الربانية والياقوتة المتحققة خائتة بمركز الفهوم والمعاني صاحب الناصر الحق بالحق طلعة الحق بالحق من الحق إلى الحق حق حقائق والحق حقه ولا حق يحق بحقه وعلى آله وصحبه wa man tabi al huda bi hëddiyin ilaa yawmi diin wallaay du la ci génne wallaay ndeysaan jarul ee eh de <laughs> tey daal tey de ñaari mbuubeen tey laa dalal benn mbuubeen bi nag day xuloog morom bi ci lan moo tax nga yëg plateau di indaale mburu mu jaaxal ma lool eh, ñu sol seeni verte ki sol verte foncé kii sol verte clair ñaari mbuubeen la ñu yoo xam ne daal tey eh, na ñu ni may seen sang sant yàlla bu baax mi nu may ñu fekkewaat aljuma Euh, julli ci sangam ba sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam te mooy inna laaha wa malaikatahu yusalluna ala nabii ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman ñaanal yàlla sunu xalifa généraux yi yal na yàlla sàmm leen aar leen kattanal leen yal na yàlla bàyyi leen ci sunu kanam ñu dund mboolem xalifa yi nga xamante ni uutu nañu mag ñi ca alxaqna bihim zuriyatihim wa ma alatnahu min amalihi min cheyin ñaanal ñi nga xam ni ñu ak ñoom diine itam yàlla taxaw leen dëgëral seen ay taxawaay ñaanal ñi ci hôpital yeeg ñi caabi euh, féete ginnaaw ñi koy woyaaleek ñi ci kër yi ñëpp ñi yàlla na yàlla saafara leen ñi ñuy wétali ko ne ci prison yi li ma leen wax saa su nekk euh, li leen fa dugal ñii tayeef la ñii njuumte la ñii xamuñu ba tey lu tax ñu dugg fa waaye bu ngeen fa bokkee daje bu ngeen bëggee mu neex kenn ku ne xoolal sa bopp ci sa morom dee leen jéggalante dee leen jéllalante jàppante leen tëddaay bay xat li muy xat-xat-xat ngeen koy organiser wu di rafetal yal na yàlla gaaw génne leen fa jàppalante leen ñi am nañ jàppale foofu ñi ñàkk man ñooñu ñuy sama ay féete ñi caay bi féete ginnaaw ndax saa su nekk léeg-léeg ñu am occasion woote ndax dañuy am bis yu ñu woote mais dañuy xaw ma xam fu ñu jëlee sama numéro dañ may woo wane ni ma oustaz dañ lay topp saa su ne sama yaram day daw ñaanal leen ñoom ñooñu ñëpp yal na yàlla gaaw génne leen ba mboolem fu ñu tëj doomu aadama nit ñu jub tegu ci siraatal mustaqim ba ñu def ko yerokaay yo xar nuyu bu baax sama baay bi ma fi uut muy jàmbaar lool Pape Abdoulaye Mbaye Peex bëgg lu ñaaw lu rafet rek démb maa ngi koy wax sama yaay ju baax yaaya jaasu ma ne ko sëriñ de buñ ko doon tànn doy na ma tànn muy sëriñ ndax du wax lu ñaaw du def lu ñaaw fu ngeen ànd yéen ñaar buy tàqalikoog njàpp di njàppaat ci saasi lu mën a doon ci àdduna bu julli jotee ak koo mën a doon bàyyi na la dem julli ji loolu la ñuy doy nitu yàlla yàlla na yàlla sàmm ko ko gisul tey ma toog fii xam ngeen bu baax euh, li nga xam Euh, du ma diw kenn ko tëj ndax wóoruma xaw ma ku ko tëj itam te itam euh, laxdar yi dafe ne wala yaxilu lil muslimi an yafala fi'lan xata yaalama xukmalahi fiihi xaw ma fu ñu ko tëjee xaw ma ku ko tëj ba tax na li wér te wóor mooy sol na dàllam dem seeti ki nga xamante ne mooy xalifa général sunu maam sunu soppe sunu xarit borom mbég mi Serigne Mountakha ngir waxtaan ci ak moom ñi nga xamante ne ñoo téye buumu nos googu ñu mën ko oyofal xam ne ay njabooti jàmbur ñoo fi nekk ay njabooti ñooy dundal seen ay njaboot ay njabooti jàmbur ak ñi ne ci ginnaaw am ay problème boobu seen TV téeméeri nit mën nañ fee taxaw ñii problème ordonnance lañu amee ñii problème mu location la ñu amee ñii problème mu wér la ñu amee kenn ku ne ci ñoom yaakaar seen TV fa ballukaay bay déparé nag bu ñu tëjee robine boobu dina metti ci borom robine bi waaye ña waroon a naan si te jotuñoo naan si itam day metti ci ñoom ndax kat nit bu la bootee di daw bu tooxee da taxaw Cheikh olof nee na ku bëgg naaw da ngay toog ci luy jóg waaye doo fekk mbonaat mu tëdd nga toog ci kawam te naan ko gaawal génne sa ay laaf kon nañ ñu jàppale ñu dawal yërmande nuyu ñaar ñi nga xamante ni cumikaay la nu ci man lool lool lool kenn ki di Ablaye Ndiaye bu yéen sama xarit la sama lépp la ñaanal ko yàlla suturaal ko kàttanal ko dëgëral ko nekk ba yéen ki ci des di Mbaye Diop Jamil taalibi sëñ Mansour si Jamil bi nga xamante ni bu suñu bët xonkee mu daw attaqué ñu di ñu defal teraanga di ñu defal lu maa ngi lay ñaanal yàlla sàmm la yàlla aar la borom kër ngunta jàmbaar barkeel sa liggéey barkeel say soxna Cheikh Mbacke sa verte bi rafet na lool tabaarakallaahu darabta nuuran bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi wa salla abada ala alladi bihi lana alhuda bada sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi sawin na wali wali barkeb borom taayif mbokk yi jàkkaarloo ak ñun ci biir réew mi ak i biti réew mi ñu ngi leen di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu maa ngi lay fay am nuyoo Sidna Mohamed Mbay wax naa ne la yow euh, gone yi dañ la bëgg te mag ñi dañ lay wétlikoo ngi nit ku baax kuy rafetal yàlla na yàlla gudd sa fan di sama baay Alaaji Ablaay Mbay Peex bi ñu wuuti ci jataay bi moom rek mu yor jikko yi puso di ñëw rek euh, yàlla na ko yàlla may ndam ci lépp loo xam ne mi ngi koy dox ci jëm ci defar ak boole ak dajale bi jaay Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam di ziar nag ak di ndokkeel alxalifatul am li taifatil muride mu Cheikh Mouhamadul Muntaqa ci taxawaay mu rafet ci bis bu tedd bii nga xamante ne adduna bépp dañu ko wuy ci santale borom bi tabaaraka wa taala sunu yaakaar tey ëllëg Cheikhuna Ahmadou Bamba Xaadim Moustapha génn góor génn géer borom Tuubaa ak Njaarim maam yi danak Cheikh Mbacke di ñaan eh, ñi nga xam ne yàlla dogal na loolu nañu ci doon ñëw di wujji woote boobu yàlla nañu dëkkee firdawsi bi jaay Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam ñi nga xam ne te amuloonu yéene te yàlla dogal ñu ne ci liyu hôpitaux yi yàlla na yàlla fëgg seen bopp ba incha allahu rabbi déw nag jàmm ñu mën a euh, ñu mën a euh, màggali di ziyaare mboolem njabootu Cheikhuna Ahmadul Khadim gépp gépp gépp euh, li ko dalee ci Serigne Muntaka wàcc ba ci Serigne Sidi Abdoul Ahad wàcc ba ci Serigne Ahmadul Mukhtar moom Cheikh Ahmadul Moustapha al Karim Serigne Abdourahmane Mbacke ñu ngi ko xam Serigne Ndam Atta mu Cheikh Ibrahim waaye Serigne Cheikh Abdoul Khadir Serigne Cheikh Say Serigne Cheikh Saleh waaye itam Serigne Mamor Ibn Cheikh Mouhamadul Moutala ak Serigne Cheikh Mouhamadul Amin Cheikh Mouhamadul Moustapha moom Cheikh Mouhamadoul Amine ak Cheikh Mouhamadoul Moustapha moom Cheikh Sidi Moutar ak njabootul islam gépp waaye itam di sant ak jaajëfal njabootul islam gépp mboolem turuxu suufa yi li ko dalee Tiwaawan Njaasaan ñëpp wu ci woon woote bi yàlla bu rëy boobu nga xam ne ak cant la yàlla dële ci ku sant yàlla na ko yàlla wisaare ci Sénégal def ko ngëneel ak xéewal ak njëggal ak barke ak nawet bu barkeel bu nu muurloo ci bi jaay Seydina Muhammad alayhi euh, bu baax euh, ak di sant bokki taalibe yi ak fu ñu mën di jógee i teraanga ci bis ku sant ku ne wax na ne mi ngi lay ñaanal wa li liman bi dof leen wa hujjatan ala muxaalifil yàlla na ko yàlla defal ñëpp nag te defal na waqdi awaahija lazina mu fi xitmati wa ablahu maramu Mouhamed wax nga loolu nga xam ne moo jëm ci gàllankoor gi dal ci kër gi waaye nag fa inna ma al usri yusran in ma al usri yusran si yàlla si ñaanuk Sëriñ Tuubaa ga yàlla nu dal euh, euh, yasir lahu bihi lazi ta'assara fa kullu ma yasartuhu taysara lépp lu dëgër rek yàlla na jàppandi bi jaay Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam di ziyaare bu baax ajaratu moom i Kébé Mouhamed bu duggee Touba ni damay seet euh, doomi Njuga Kébé yoo xam ne dafay dimbali doomu aadama yi ko soxna moom i la ñuy yóbbu directement ni nga koy wax rek kuy jëriñ doomu aadama yi faw suñu borom di la fi yàggal soxna moom i màggalu Sëriñ Tuubaa budget spécial nga ko wutal lépp loo ki def yàlla na ko Sëriñ Tuubaa doolu te fulal la ko defal la ko tawféex ak xéewal ak gudd fan gu ànd ak wér di ziyaare soxna Bali Muntaqa moom Sëriñ Soy bo sama xarit sa taxawaay ci màggal gi rafet noonu yàlla na sama am fay ci barke Cheikhul Khadim waaye nag euh, sañse bi nag Mouhamed li ngay tudd léegi ku ñu wax soxna sama bàjjen euh, Ami Samb di présidente fédération na soxna Jaara yi ne ci Italie yëpp tollu ci fanweer ak juróom-ñaar moom ma ko jox ni ma màggale ko waaye mbaxana mu rafet mii nag ki nga xam ne moom mooy Souleymane Diba eh, nekk eh, centre commercial marché te leen di taalibi Baye baax moom ma koy jox sañ kon nu ngi leen di ñaanal jàmm eh, di am mbégte del soit ak yéen ci seen émission tante Nabi Mouhamed man nag li ma jaaxal mooy sa yaay soxna Momi Kebe ah Asta Binta Aram Dior kenn moom sa yaay de at at atum lëmb <laughs> mënuma kaa dinaa la ko woon ba atum lëmb yaa ngi ma koy wax. boo ko gisee gis ku gën. sama yaay jooju nga xamante ni maa ngi koy nuyu di ko ziar. li ko wax léegi wa ammaa maa yanfa'u naas fa yamkusu fil ardi. dëgg la Cheikh boo dee wàññiwul dara. déedéet nit njariñ lañ koy doyee. tabaarakallaahu nuyu ko moom ak sunu yaay muumi ke moom ak sunu yaay soxna Baali Muntaxa. ndeysaan da nga wax ma xam ne rek sama xel dem ci sëñ Abdou Samad bu sëriñ Chouaïbou. ci sama kanam. waaw ci sa kanam sëñ Abdou sama euh, ku tedd la. ndeysaan kilifa gu baax la. Mhm. Euh, sëñ Ahmada sama baay bu baax bi ci Fass nee na bu la yàlla diisalee mhm. nga bëgg di diis ci kenn du la attan dëgg la te yàlla diise la mooy paaseetul nga sant si wala nga sant Mbàkke wala nga sant Laay wala nga sant Ñas mhm. loolu rek paaseetul diisu tur ci sunu réew mi waaye ci mbaaxam ci modestam mu yónnee mbaxane ci néegam bu mel ni bu rafet lool multicolore bu amul fenn simmi sama mbaxane solal ma mbaxane moomu boole ma ci njabootam jël doomam Mouhamed Mbacke ni ma seexale naa leen ndeysaan téye sama loxo téye ci loxoom ma bég ci lool maa ko waaw kay ñoo bi ci des bi ma neex lool lool lool doomi Serigne Fallou si nga xamante ni sëñ Abdoul Baraka ñëpp sopp ko ñëpp am mbégte ci moom li mbooloo mi bari bari dafa ni borom mbaxane mi da xamee naa ko borom mbaxane mu jekk bi borom sañse bi waaye mbégte moom chaque koy dugal sama statut kilifa cër la waaye man jaboote jagle yàlla la seex ñu daal di fi dalal ah, beneen mbuubeen boo xamante ne ah, xam naa ni ah, sànq ba léegi muy sàq mi <laughs> tabaarakallaa muy sëriñ Moustapha Mbuub mhm. sëriñ Moustapha la ziyaara la mhm. koy baax gi mhm. sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi alayhi salaatu Bamba Khadim Rasoul ay sant jëwriñam ji ju màgg ju kawe ji di Cheikh Mouhamadul Muntaxa dëgg ko ñaanal sunu boroom kattanal ko dëgëral ko ba nga xam ne naal yi nga xam ne moom la naal fas yéene koo liggéeyal lislaam fas yéene koo liggéeyal maamam ju tedd ja Cheikh al Xadim yeggale ko ak sagoom amiin yaa rabbi amiin te mu ànd koog taalibe yëpp ak jullit yëpp barket Cheikhana al Khadim. amiin yaa yi sant nañ bu baax. Mhm. ci ñaar yi jëmm yu baax yu tedd yi nga xam ne. ñoom laa bokkal plateau bi. kenn kii ñoom ñaar ñëpp di samay bokk. Mhm. di sëriñ Aliou Mbaye. Mouhamed Mbaye yaay sëriñam sëriñ ma Aliou. Mouhamed Mbaye Mouhamed Mbaye. ak ñaari jëmm yi ma dajal dégg naa ci lool mel na ne ak dolli loo xam ne ci man la leen ñaanal jàmm ak tawféex ci baaxub sëriñ bi mu dal seen kaw di borom kër bu baax di Alaaji Bugaan mhm. ib taalibe sëriñ Tuubaa bu wér dëgg la bu dëggal yàlla yàlla yokk sa jàmm ko ñaanal jàmm ak tawféex mhm. ba nga xam ne naal yi nga xam ne naal na ko fas yéene ko liggéey dara waralu ko lu dul réew mi mhm. ak liggéeyal Cheikh Al Khadim mhm. loolu rek moo ko ñor. maa ngi dégg démb. Mhm. gàllankoor yi nga xam ne dafa am ci kër gi. Mhm. waaye loolu lépp tawféex la joo xam ne dafay doon dolliku ci moom. dëgg ndax fi mu wéeru. mat na wéeruwaay. wéeru ci Serigne Touba. doy na wéeruwaay. dëgg kon loolu lépp. yàlla na ko ci yàlla defal tawféex yoo xam ne dana kawe njortam amiin yaa rabbi lépp ci jàmm rek lay mujj ak tawféexu sëriñ bi amiin euh, sëñ Moustapha mhm. euh, mu mel ne tey da nga fee euh, toogal njabootu tey ba cekkeen toogal fi njabootu Kaolack waa kër Alaaji Cerno Seck ñu ngi ziyaare baax mboolem ko sutu ci maam Waar Seck maam Malle ak Sidina Alioune di ci jiital nag sunu sëriñ sunu xarit Cheikh sëriñ Cheikh Awa Balla di caatum Cheikh Amadou Fadal nga xam ne bu ñu ko tuddee rek soxna Marème Fall wuy juróom xel dina dem ci ba nga togg leen fi ci jàmm gàmm goo xam ne tey euh, ci ndigalu Cheikh Mahamadul Bachir mag ñu tedd yi dañ ko taxawoo woon euh, ba tey mu rocc seen loxo mu bëgg nga ñëw ñu gàmm gi ak li nga xam ne noonu lañ ko fas yéene dundale insha allahu rabbi maa ngi ndax xam ngeen ne soobu nañ ci mawludu nabi sallallahu alayhi wa sallam tey la benn panub gàmm yàlla insha allah àggaleeg jàmm te ñu doy ci ngërëm te def ko ne mu sëriñ bëgge tahsimuhu bi sunnati yaquduna jannati waaw sëriñ bi mm-hmm. ñu ngi dëlmal bis bu rëy mhm. bu màgg bu kawe bu yàlla gërëm muy bis sang bu tedd bi di Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam bis boo xam ne mhm. bisub yokku la mhm. bisub njariñ la bisub dolliku la la kon bu ñu ko dëlmalee ñu dikk fii tey parce que yéen fay yëkkati ay kaddu. kaddu yi dafay dëppoo la mag ñu bëggoon. ba bàyyeekoo ca jàkki murit. ndeysaan ca Kaolack. di sanc bi. ñëw ci ndigalu waajur yi. ya nga xam ne ñoo fa nekk tey. su ma ci tuddee sëriñ ma Yaasin Seck mi nga xam ne mooy jëwriñ ji. ndeysaan tudd ci El Hadj Balla tudd ci Assane Mbuub damay daal di duggalaale ñëpp ci biir. yooyu yooyu yooyu mag la ko jiitu dafa am taxawaay bu rëy boo xam ne dafa taxaw dafa nekkoon ci jàkka ji ñu koy ñu koy dund. Mhm. muy mag ñu baax ñoo xam ne dañ fa nekkoon. Mhm. ku mel ne ku mel ne Baye Mballo Kebe. ku mel ne alaaji Ibra Fatim Mbuub mhm. Baye Mballo mooy papa alaaji Njóo Kebe mooy bàyyi Njóo Kebe mhm. ku mel ne mhm. sëriñ Mor ak sëriñ Ale Samba Gueye ñooy mag yoo xam ne ñoo fi taxawoon ak taxaw ci fédération bi ku ñuy wax euh, sëriñ sëriñ Modou Modou Modou Gueye ñu amoon pas-pas boo xam ne dañ koo nekkoon ci fédération bi. ci dundal barab boobu. ci dundin woo xam ne dundin wu dundin wu rafet rafet la. dëgg nekk fa bu gàmm mësaan a ñëw. Mhm. ñu taxaw ci taxawaay boo xam ne taxawaay bu rafet rafet la. dëgg di ko def. Mhm. ci anam bu anam bu sell bu yàlla gërëm. biñ ci nekkee nekk ci nekkin woo xam ne rekk mu rafet la mhm. jumaa ji ci jàkka ji eh, gàmm gi ci boppam mhm. mag ñooñu nekk ci nekkin mu rafet du ko dundal ba nga xam ne booy xool tey mag ñëpp daanaka raaf nañ yal na yàlla yërëm leen yal na suñu yërëm leen te yóbbu leen ci barsax yi gën a kawe yooyu mag nag bañ fi nekkee du ko dundal dundalu rafet ñun ñii di seeni njaboot ñu taxawaat ren taxaw tembe bëgg a dundaat yeesalaat taxawaayu mag yooyu. Mhm. moo tax ren ñu taxaw ci gàmm gi. bëgg cee taxaw taxawaay boo xam ne ku fa ñëw baa nga gis ko danga xam ne fii am na ñu fi jaar wommatu pour liggéeyal mag ñi. Mhm. bés boobu dafay nekk bés boo xamante ni bésu gàmm ngeen koy def ci guddi gi wala. bisu gàmm gi yëpp bisu gàmm gi. ngeen xëyee. ci la xëyee. Mhm. bu nu xëyee mag ñi. yi mhm. nga xam ne dañ fee nekkoon liggéey liggéey bu rafet boobu te jiitu nekk tey ci barzaq. yàlla yàlla leen. ñoom ñëpp ñu fàttaliku leen ci téereb sunu borom bi alxuraanu karim. Mhm. ñaanal leen fàttaliku leen ak njaboot gi ñëpp. bu ñu defee loolu ci bëcc ci suba gi. moom la ñuy fas yéene yendoo ba jant bi ba ba tàkkusaan bokk yeeg am di jàmm yeeg ñëpp génn ñu def une cérémonie officielle boo xam ne kilifa yi yëpp danañ teew ak autorité yi yëpp ñu waxtaan saafonte conférencier yi waxtaan fa ku mel ne sëriñ Maamoor Mbàkke xam sa diine macha ku baax nit ku baax mel na ne way juróom sëñ jili gànnaar sëriñ jili sëriñ jili gànnaar daana ko taxaw moo fi daan julli julli it ci ndigalu ki nga xam ne moo fi nekk mhm. nekkal fi sëriñ tubaa moom dafa nem taxawee ak sëñ Gànne Misra mhm. ak sëñ Cheikh Mbay ñu mel noonu ñooñu ñëpp dañ teew ci bis bi dëgg suñu toogee nag ba ba ginnaaw ba ginnaaw timis ba julli ba noppi mhm. ñëpp dañ delluwaat ci dal yi suñ delluwaatee ci dal yi ci guddi gi ñëpp génn nag ñëw ci baas bi fekk fi kilifa yi jigéen jigéen ñi teew góor ñi teew ndax jigéen fu mu ne du góor du mën a dem bàyyi jigéen jigéen du mën a dem tamit bàyyi góor ñëpp teew ak seeni sañse ñu toog ci biir bi dundal guddik Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam loolu lañ fas yéene def ko ren di ci woo ñëpp nag Euh, mu mel ne Cheikh Moustapha euh, euh, jumaa ji dañ koy defaraat ndax jumaa ji mel na ne jàkkay murit Kasnack Touba Kaolack mel na ne am na ayaat ndax bu ñu juum 1970 la ko fu mag ñu baax ñu ngi taxaw woon mu yàllaa ji Cerno àllaa ji Njuga Kebe ak mag yu baax ñu ñu àndaloon sëñ Ibra Fatim Mbuub ñoom mu mel ne kon jumaa ji dañ ko toj di ko defaraat waaw jumaa ji dañ koy waajalaat mhm. dafa am jamono yoo xam ne daf caa tolloon muy loo xam ne taarix la lu yàgg mag ñu baax yoo xam ne ñoo ko sumboon boo ci tuddee sëriñ Mballo Kébé tudd ci bay Mor Seck mhm. tudd ci Alaaji Ibra Faati Mbuub mhm. ak Serigne Massa Massamba Mbuub mhm. ak Serigne Mballo Kébé daanaka da tudd ñëpp ñoo taxawoon tembe néegub yàlla boobu ñu taxawal ko ci ndigali Cheikh Mouhamadou Bachir sëriñ Bachiru jumaa jooju tey ci jàkkee murit ñu koy dàkkanteel jàkkee murit ndax barab la boo xam ne néegub yàlla la jumaa néegub yàlla la waaye dàkkantal moom mënta ñàkk dàkkantal waaw ñu dàkkantalee ko jàkkee murit mhm. ci ci ci ndigal Cheikh Mouhamadou Bachir sëriñ Bachiru mhm. sancoon foofu mhm. muy barab boo xam ne moo njëkk ci yoonu murit muy muy muy jàkkee murit moo moo moo fa njëkk njëkk njëkk ci jàkk ji nga xam ne moo njëkk a taxaw ci yoonu murit foofu ci ci ci ci ci Kawlax mhm. Sëriñ Basiru nekkoon faak waajur yooyu noonu mhm. ñu taxaw ci taxawaay boo xam ne taxawaay bu rafet rafet la mhm. di ko dundal barab boobu nag tey ca melowam meloon 1969 El Hadj Ndiouga Kébé Babacar Kébé daal di ñëw. astu mm-hmm. binte ci jàmbaar gi ci nangoo liggéeyal borom Touba. jàmbaar yi sëñ Bamba ci nangoo liggéeyal nangoo liggéeyal diine. kenn ko fàtte. mu ñëw yeesalal ko Cheikh Mouhamadul Bachir. ba mu mel nanga xam ne. na jamono dëppoo mu mel ko. dëgg jumaa ji dox nag ba soixante-neuf ba léegi mu dem ba xaw a ràpp. Mm-hmm. ñu dem fii ki nga xam ne. yàlla na ko fi yàlla yàggal muy Cheikh Mouhamadul Mountakha. amiin yaa rabbi yàlla wéral ko te kattanal ko. amiin yaa rabbi dem fa wax ko ko ci wax ko ko. Mhm. mu jox ñu ci ndigal. Mhm. yëkkati pas-pasam def ci biir. Mhm. ne fas yéene naa ko ànd ak yéen bam mu ne colet ci kaw. jàkka ji jumaa ji ndax tey jii dafa am ay euh, numéro yoo xamante ne tey. dañ ci jaare ngir ñi nga xam ni bëgg nañu ci def seen participation ndax jombul ay doomi dëkk ba ñu ngi bitim réew mhm. euh, tiitaroo nañu jumaa jooju tey bëgg am yoon yu ñu jaar ngir dugal ci seen wërsëg ngir ñëpp mën a jàpp ci jumaa jooju am na ay numéro waaw xam nga mhm. kii euh, ku mel ne boo koy seet ci alaaji Cerno Seck waaw jàmbaar lool mhm. ngoo liggéey doon taalibe bi sëñ Tuubaa bu dëgg te dëggal jëf lu bari tam ci gox boobu ñëpp gis koo teg seen bët. ku mel na njabootam. suñ ko fa defee ñoom soxna Asu Sekk. waaw soxna ko ziar baax na la Lamine Sow. jëlee nit ah, Asu Sekk ku mel na soxna Asu Sekk. képp koo xam ne da ci jëf. boo ko joxee soxna Asu Sekk day mën a yegsi. soo ñëwee ci Kaolack ci imam ratib bi nga xam ne. muy Serigne Moussa Kane. dafay mën a yegsi. soo ñëwee ci sëriñ Falilou Seck mi nga xam ne nekk na fa dafay mën a yegsi boo ñëwee ci sëñ xaadim sekk itam doomu alaaj ceerno sekk itam yooyu yëpp jëf yooyu dafay mën a yegsi ci biir jumaa ji tabaarakallaahu léegi ah. euh, Euh, Cheikh maa ngi nuyu bu baax militaire yi nga xam ne ñu ngi Gambie ñu ngi topp te mooy waa euh, Destan 5 mm-hmm. waa Destan 5 ñu ngi Gambie ñu ngi ci camp bi ñu ngi ñuy topp euh, rawatina Cheikh Omar futur maire nag Colobane mm-hmm. Fass Colobane mm-hmm. maa ngi koy ñaanal coono ba muy daj foofu ca Fass la muy daj ca Colobane ngir bëgg dëkk ba stable yal na yàlla jàppale ko ci yal na yàlla teg maire bi ci loxoom Cheikh ñu bàyyi ko kàddu yu mujj yi lan la waaw xam naa rek nga tàggoo kàddu yu kàddu mujj yi ñoo ngi ziar baax soxna Astou Seck ak Serigne Cheikh Fall Khady Guèye di sunu wëlëre di surtout maam Aliou Seck ndeysaan ak ki nga xam mooy Serigne Cheikh Seck di sunu mag nekk fële ci Kentucky Louisville di njabootu tay boobu tam mi ngi ñuy topp ak na nga xam eh, mujjee ngay tàggoo ak eh, bokki téléspectateurs yi seetaan Sen TV waaw comme comme ko waxee rek mhm. barab barab baa ngi noonu néegub yàlla la mhm. képp ku ciy jëf mhm. eh, def nañ ko ci ndigalu Cheikh Mamadou Mountakha ñu ngi bëgg képp koo xam ne jëf na ci rek ci tur yooyu ma tudd nga nga def si soo ñaq travaux yi nag maga fa ñu ngi ciy xaar ñëpp di ci xaar jullitu yàlla yëpp di ci xaar taalibe yëpp ñu ñëw jëf si gannaaw bu loolu sëñ bi ñu ngi leen di sant te di leen gërëm di leen ñaanal jàmm ak sutura di leen xamal ne bis ba mu ngi noonu comme niñ ko waxee rek sëñ Maamoon Mbàkke xam sa diine dana fa teew sëriñ euh, Gana Messere Gana Messere dana fa teew. Mhm. sëñ Cheikh Mbay bu kees. jërëjëf ak sëñ Papis Kara yu mel noonu. macha allah ñooñu ñëpp danañ teew ci bis ba. bis la boo xam ne ku fa ñëw danga nga bëgg. ci wàllu bernde. comme ni ko sëriñ bi waxee rek. Mhm. ni ko sëñ Tuubaa waxee ci jës bu. Mhm. digganteem ak rasulillah bu fa ñëw sa xol dana sedd. danañ ko màgg danañ ko gàmm ci gàmmin bi nga xam ne. dëppoon naa la nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wa salaam bëgg. danañ ko defee noonu. di ci invité jullit yëpp. di ci invité taalib yëpp. tabaarakalaaw di leen sant di leen gërëm. ñu ngi kontaan bu baax a baax euh, dégg ngeen bés baa ngi noonu bésu gàmm euh, lay doon euh, dégg nga Cheikhul Khadim arsala rabbu naas xayra naas ila naas bëggoon yonent bi salallaahu alayhi wa sallam lool ñu daal di ko yeewi rek bu fekkee Mara. Euh, wala maar am na loo xamante ni war na mën a euh, am foofu nuyu bu baax Fatfal Balago mhm. Fatfal mu ngi ba tulu euh, Toulon di ñu seetaan moom ak soppeem Amina Rasoul ñoom nag ay soppe yonent bi lañu yoo xamante ni samay soppe la ñuy lool lool lool lool su ma waxee ci yonent bi daanaka dootu ñu am sago lu ne la ñu may defal maa ngi leen di nuyu di leen ziar rawatina sama yaay jaaga nga ni bu weeru dugg see moom i dootul am sago yaay waali bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu jeex cheikh dañuy bàyyi maar mu daal di ñuy dugalal dara nag weeru njëkk ci euh, rabiu awal ñu dàqanteeg weeru jëm fukki fan ak ñaar ci weeru gàmm maar euh, nga daal di euh, dugal dara rek ñu daal di yeewi gan gi nag ma daal ma ma ma ma ma ma jox Cheikh Mbacke Cheikh Cheikh ay ca ci wax. waaw euh, di sant yàlla bu baax rek xam nga ne am nañu euh, bis bu am solo boo xam ne nii macha allah ndeysaan euh, Mouhamed bis bu rëy ngi nii muy dimanche bi nu génn tolloo woon ak ñetti fan ci weeru octobre 2021 Serigne Abdourahmane moom Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma di xalifaam wuutu Serigne Mbacke soxlo magam ju baax ja wuutu Serigne Abdoul Fatah magam ju baax ja ki nga xamante ni moom moo miiree 1600 mètres carrés defal ko muy arab meli nga xam ne mooy armée di Taïf ki naalal Serigne Cheikh lycée moderne bu coût 467 milliards 467 millions ñeenti téeméeri millions ak juróom-benn fukk ak ñeent moo seq ay jéego rafet dem gane ji doomam taawam ki nga xam ne mën a xoolee Serigne Mbacke muy Serigne Moustapha Ndiagne ak Serigne Falloum Serigne Mbacke soxloo lëng seen wajur wa ndeysaan président Bougane ak Mouhamed euh, kii mooy Serigne euh, Bougane gi dañuy mooy Serigne Moustapha Mbacké di taw Serigne Mbacké soxla di xalifaam ndeysaan Bougane dagg yitteem yëpp ànd ak Moustapha Diop doomu ndeyam ñu euh, dem ba Daaru Minam niboo ji dëkk bi nga xam ne sëñ Modou Sa mi ngi ko sanc 1928 ndeysaan dem nag seeti sëriñam wasilaam ki mu xoolee Serigne Mbacké mu toog gis nga ak ndeysaan ak wifi bi toog ci suuf toog nag ak euh, ki nga xam ne euh, moom mooy euh, wuy juróom di Serigne Abdourahmane mu taalibe yaa ngi noonu ndeysaan di ziyaare ndeysaan bëggaan a ngoog bëgg daara ko sol kër gi ñoo ko lool lépp lu mu dégg ci kër gi dana dagg yitteem ñëw emploi du temps chargé na lool waaye ziar ci sëriñam bokk ak moom victime yi dalal seen gan muy seen wujur di sëriñ Abdourahmane Mohamed Mbaye ni boo fa boo fa toogoon yaakaar naa da nga kiime juróom benni xeeti xeewal bogaa na ngoog ndeysaan di saafonte ak bokki taalib nuyoo ak sëriñ waaw di nuyoo ak euh, ndeysaan Serigne Al euh, Oumar moom Serigne Cheikh Amadou Mbacke Gaynde Fatma na ngi noonu ndeysaan di sax wax dëgg bokk taalibe ku xool kanam xam ni bég na belli na ndax këram la ñëw ab taalibe la fi doom la fi muy ëttu Serigne Mohamed Mbacke kon ci toom doomam ji nga xam ne mooy Cheikh Mouhamadoul Moustapha fële ci euh, Daaru Minan nibo ji ndeysaan nu gis bokk taalibe yi ni nga xamante noonu la nu bégee ñëpp ñëw te kat yëgle wuñu ko Mohamed yëgle wuñu ko waaye nibo ji dafa fees del ndeysaan gis nga ndeysaan jàmbaar yi xam ne ñoo ànd ak Cheikh Mouhamadoul Moustapha di liggéey di muy euh, daayira ahibahil xadim di nusrati dini xawim mbayeen yi xam naa ne ko gis bernde yi Mohamed boo fa newoon juróom benn xeeti xeewal yoo xam sa morom yaakaar naa boo fa euh, nag gan gi jar ko ah, ndax Mohamed gan gi jar ko ndax sëñ Abdourahmane walaay euh, dafa sëñ sëñ Moustapha dafay ganale wuy jërëm sëriñ Abdourahmane ne wax naa ne bi mu toog ci xilaaf ak sëriñ Cheikh gi kenn jooyut uuf na ñëpp jaboote na ñëpp lii rek feddi na ko ndeysaan saan ah, muritu sëñ Mouhamed Ba nga xool teraanga ju réy ji mu def ndeysaan yëkkati teraanga jox ko sëñ Abdourahmane moom sëñ Cheikh Ndigal Fall moom sëñ Cheikh Fall Baye Góor waaye yëkkati teraanga di ko jox sëriñam sëriñ Moustapha Ndiagne sëriñ Moustapha Ndiagne boole teraanga jooju ak li ko sëñ Cheikh Ndigal lépp joxaat wuy juróom di sëriñ Abdourahmane di li lu jàngale li wax ne ku bëgg a ku ne da ngay nangu euh, toppee bu yàgg daañu la topp sëñ Cheikh Ndigal def su rafet boole ko nag ak andi ay xéewal yu baree bari togg ay ndab yu murite ak ay xéewal mboolem xeeti xéewal yi indil ko Serigne Moustapha Dieng def ko barkeelu ci ngan gi nga xam ne wax dëgg yàlla ganam gi amul ko ah gàkkale bu dugg jangoog koy tagge Serigne Mbacke Serigne Cheikh soxna a saaxeelu Faat sama Serigne ngoog Serigne Mbacke soxaloo kii moo defar bogaan ndeysaan borom tey fëg bay laa ngi nii kii moo wut Serigne Cheikh Faat ma Serigne Cheikh Cheikh Modou Moustapha Khadim yaakaar jaam ñu bale si budi Serigne Mbacke maaram surtout gàkkale bu dugg xuri jëbale ñaan baa nga maam nee na ko daw ñaaw Serigne euh, Mbacke Mouhamed ngoog ndeysaan borom tey kii nag alaaji kii lu la defal ah waaw ah, kii li ma defal bëri na kii moo tëdd ma tudd saa ñebbe wala maa joojo kii moom ma defal sëñ Tuubaa nee na sëñ bay laa leen ñuy wax lu ñu xamul ngay def lu ñu mënul kii mooy borom noppe ak joxe mooy borom naas muy Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma soxna Fatma ko jur soxna coro fay saas ba kii gaynde borom tayif ak bay laa réew na lool waaye bu jëf ji te wax ji néew lool sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké Gaïndé Fatma ki mooy bàyyi sëriñ Abdourahmane mi jugoon te eh, teppi ay jéego dem seeti doomam ànd ak njabootu Serigne Cheikh gépp nag ànd ak Serigne Youssou ànd ak Serigne Omar ànd ak Serigne Cheikh Abdou Gaynde Fatma ànd ak Serigne Hassan waaye nag ba mu demee mu fekk fa njabootu Serigne Mbacke gépp teeru seen wajur wu tedd ba Serigne Khadim Naar Serigne Mohamed eh, Serigne Baara Rakam Serigne Fallou organisation bi impeccable ah sama waa jàngoog borom ahi bayil xadim ma ngoog sama mag gi baax jàngoog ahi eh, moom Pape Mbaye moom moom bu gisee kii rek moom daan daan ni boo jéngoog waaw ki nga xamante ni kenn dégg ko ci dara dana tekk rek ni dégg ne ci la ko maam ji bàyyi woon muy liggéey ak jaamu yàlla kii ñaanuk Serigne Touba Mohamed nangu na ci moom zoro yatan tayyibatan tujaddidu najjana biyal Mustafa taj daydu kii ñaanuk maamam nangu na ci moom waxadoonaa zoro yatan tuddi mu alhamala salih ya xadimu Serigne Moustapha Ndiagne ngoog borom niveau bi ngan gi rëy lool bokki taalibe kontaan lool ñëpp bég lool waaye nag njaboot sëriñ Mbàkke gépp la ko dale ci taawam soxna Aminata Mbàkke ànd ak soxna May ak soxna Mbóoj ak soxna Moxsinatu kenn desut ñoom ñëpp dañuy ñëw ànd ak sëriñ Moustapha teer la ko gan gi nga xam ne amuñu ko ko ëpp muy seen wayjur di euh, sëriñ euh, Abdourahmane Mohamed macha ah, allah borom bâtiment baa ngi kii la ñu tuddee taax bi nag ah ah mooy bàyyi sëñ Moustapha mooy bàyyi soxna na bu nag mooy bàyyi soxna astu ak ami sama xam kii kii kii bu la fi fe bu fekkoon jamonoy tey euh, mu ngi dund ba war a daagu ñëw seen TV nga eh! jàkkaarloo moom loo koy wax dama naa ko sëriñ ab soxna loo jub la sa yaay tudd sëriñ Mor Jàdd moo ko jur sëriñ Mor Jàdd moo ko jur Masamba Gàdd Ndaag Mor Xuju Kumba Masamba Ceeba Madun Penda Buya Matandumbe Abdou Fata le Bougne le digne l'élégant l'un des premiers intellectuels de la commune mu bàyyi bu sëriñ laa ilaaha illallaah ayca mu ngi noonu neex na ba pare sama xol baa ngi sedd Cheikh Mbacke eh, yàlla na yàlla eh, la fa la cat mais dama bëggoon ñu dellu ci kii kii sëñ Abdourahmane kii moo kii kii xam nga nag maar maar moom maar maar maar non Babacar maar bokk Babacar maar Babacar nag moom daanaan la sëñ Abdourahmane mi moom macha allah moo suturaal ñett de Taïf wallaay day saat miire un mille six cent def koy armeel macha allah kooku mooy ñi dem ba sax fàttaliku naa leen yàlla yàlla euh, euh, dolli seen yi dolli yërmande moo ne Serigne Cheikh dafa bëggoon xam-xam mhm. ba taxawal la première école française à en mu ne danaa topp jéegu Serigne Cheikh ya sajj lim bu rëy muy lan muy lycée moderne boo xamante ni ku 467 millions ni danaa ko defal Serigne Cheikh ba nga xam ne mooy tokkër ba kon kii dégg na njàngale mooy juróom ala xamal dara de sama gambien yi euh, sama militaire yi nekk Gambie de ñi ngay zibile fi mu toll nii ca ca ca ba ñu nekk fallu nuyul ma sama gars yi nekk foofu gambien yi nuyul ma leen nuyul ma sénégalais yi nekk foofu ñoom ñi ci camp bi yëpp ma dama bëggoon a xam euh, Moustapha euh, sànq yaa ngi wax ni képp koo xamante soxla na rek tabarakallahu numéro yi dina am maam borom mbég mi Serigne Mountakha ngir euh, jàppandal ci kër gi xaw a yolomal nosu buum gi nga xamante ni mhm. moo téye ba laafaale képp koo xamante ni yaa ngi liggéey ci kër gi waaye ñuy ñaan rek euh, euh, sama papa Abdoulaye jamono ji mu ngi ñuy seetaan fi mu ma ngay bég lool ma ngay kontaan moom xam nga bu kontaanee day ree fi mu toog ah. sama papa Abdoulaye Mbaye Père mu ngi noonu lii yëpp tey liggéeyam la ndax lii rek war naa daw yaram ñëpp ñëpp ñëpp jàpp ci te président doonoon léppi nag euh, euh, président Macky Sall léppam doonoon sëñ Mbacke Mouhamed. moo tax lii dafa daw yaram lii dafa lii dafa daw yaram lay mhm. ndeysaan lii dafa daw yaram Cheikh yéen numéro nga xamante ne tey jumaa ji war nañ cee képp koo xam ne na ci def teranga dina ci jaare Mouhamed mu mel ne soxna Astou Seck moom ah. Alaaji Lamine Sow di njabootu Taïba 77 522 82 77 képp ku ko jot mën ngaa dugal saw ñàq ci li nga xam ne moom mooy euh, maanaam barke lu yuy jëm ci li nga xam ne moom mooy jumaa ji incha allahu rabbi taala sëñ Moussa Kane imam Sakkan Imaam tam. ak moom mii 77. waaw 77. waaw 640. waaw 73. waaw 98. ndeysaan waaw euh, mooy Imaam Moussa Moussa moom itam sëñ Moussa Ba mi moom mooy imaam mooy mooy ba moom itam ku jokkoo ak moom incha allah da nga am lépp loo xam da nga ko mën a dugal jàkka gi. mais euh, Mouhamed su ma desuwaatee ci ngan gi euh, xam nga xew la gis say bokk dafa neex te sëñ Moussa yëgaliwul ngan gi waaye mboolem ay ay la ko dalee ci sëriñ Mbacke Gueye Ngathie mi nga xam ne moo jiite seex si muy toll ci ñett téeméeri Cheikh ak lu topp la toppoon Cheikh Modou Moustapha topp Serigne topp Serigne Mbacké ñëw nañu ànd ak Cheikh Moustapha ganale ko ganam gu ne amul gan gu ko ëpp waaye euh, ñi nga xam euh, yi ku baax di ko ab defarkat ñi nga xamante ni ñoom ñooy rekki Serigne Moustapha Mohamed di njabootu Serigne Mbacké kenn desul kon dafay wane ni ñoom seen wajur fonk nañu ko lool waaye taxawaay bi nga xam ne taalibe yi am nañ ko xéewal yi dara manqué fu nekk nit jóge na fa te yëgle wuñ ngan bi muy taxawaay bu am solo dafay fàttali rek ak bokk dañu koy dox bokk ñetti cër ñoo koy dox Moustapha mooy ab loxo mooy tànk mooy aw làmmiñ te lu ci manqué yi bokk gi yëg ko muy taxaw bi rafet ci loolu nag ci la sëñ si Basirou Lo mi nga xam ne mooy kaddu sëñ Moussa Mohamed yëkkati kaddu dalal way juróom mu tedd wi ñaanal ko tatagal ko xam la ko ci barab la ñëw te li fi nekk ak baax mu borom xam-xam boobu ak sëñ Mohamed euh, euh, ci euh, nga xam ne mooy sëñ Moustapha ci dalal gi mu ko dalal ñuy sant bu baax président Bougane ci jigu yi nga xam ne am solo def na ko muy jóge ba Dakar bis boobu rek yitteel ko mu ñëw saafonte ak sëriñam ganale ko ak ganam wax dëgg yàlla bokk ak taalibe yi ñëpp bég Mouhamed loolu di taxawaay bu am solo euh, ñu jëm nag ci gàmmuk Taïf ndax ci barabu Serigne Mbacke Mohamed foofu mu tëdd fa la Serigne Moustapha Mohamed woo képp ku ko yaakaar ginnaaw màggalu gi nga xam ne wax naa ko ne yaa dëgg jaay laa dajji jëng yi ndax dëkk bi dafa doy waar pandémie bi ñëw sëñ Moustapha ne ah bis bi nga xam ne ci la sëñ Touba ñibbi woon Touba danaa ko màggal na ko Cheikh Moustapha defe woon mooy isronu muharram woo ñëpp ñu fekk daara kudus ci jàng alquran ci salatu ala nabi ak ñaanal Serigne Touba moo tax ma ne ko Mbàkke képp ku dégg sa abiyaati maam yi xat fakka kabla xat baasa fadla fadlu wala naf ujaay xam ne firndeel nga ko ci bis bi nga xam ne mooy isronu muharram waaye nag xam ngeen ne mi ngi woote gàmmu gi nga xam ne mooy la gàmmu ci barabu sëñ Mohamed ci Taïf di ci woo bokk yëpp sama sëriñ tam sëriñ Xaadim moom sëriñ Mbàkke Soxla woon na képp ku ko yaakaar ci gàmmu gi ko wujjuram digaloon mu koy defee Louga kon ñëpp nañ ne waaye nag xam nga di altine bii nu jëm sëriñ Sidi Sëñ Blaat dafa yëkkati liggéey bu rëy teg ko ci loxol doomam sëñ Moussa Mohamed muy ngóob mu ne at mu nekk kon ñëpp nag nañ dem jublu Daaru Salaam mbokki barga ndax sëñ Moussa loolu la digle ci ngóob mi Mohamed ci liggéey rek la bu dara ak wax tabarakallahu Cheikh Mbacke jàmbaar la loolu Cheikh ndeysaan euh, yal na la Cheikhul Khadim daal di teg loxo màggal gi li muy xat-xat am na gan gu ne waaye def ma fonk nee naa ko añ ñaak sa kër añ yoo xamante ni donte mbuub nga sant ma a àdduna ba tey daal <laughs> ceebu jën bu nu xonke te neexee ni maa ngi koy doog a lekk kafe ga ma fanaan ba ma gane àdduna ak léegi kafe ga ma fanaan yamu ci waaye jox na ma jeesineer boo xamante ni <laughs> euh, cheikh euh, ku nit ku baax la maar cheikh ña jox na ma jeesineer bu rafet rafet rafet rafet ci ma sol ko ci màggal bu ma duggee këram day mel ni këram man maa ko moom fu ma neex laay toog fu ma neex laay dugg yi tamit ànd nañu ci ay kilifa yu bare bare bare loolu mbaax moo koy euh, waral bu ko defee damaa damaa ñëw mu mu yaatal ma seen TV moom sama papa Abdoulaye Mbaye Pekh uufal ma yaatal ma ndax bu ñu ma yaatal woon du ma yaatu ndax ñëw loon dénkaane koy bàyyi damay bàyyi euh, Moustapha kàddu yu mujj yi lan la ndax euh, daanaka waxtu wi jeex na ba pare a après kàddu yu mujj yi ñu doog a tëj ay ca kàddu yu mujj yi yaa ngi woo ñëpp rek waaw ñu ngi kàddu yu mujj yi mooy ñu ngi woo ñëpp rek mm-hmm. tey santaat yàlla bu baax tey ñaanaat Cheikh Mountakha rek mu yàgg fi te wér mm-hmm. ba nga xam ne naal yi nga xam ne naal na ko fa yéene koo liggéeyal lislaam mhm. liggéeyal ko Cheikh al Xadim mhm. mu yef kook sagom tànd kook taalibe yëpp amiin ba comme ni ñu ko waxee rek mhm. ñi ngi woo jullit yëpp di woo taalibe Cheikhul Xadim yëpp ci guddi gi nga xam ne mooy guddi Seydina Mohamed nga xam ne mooy ay alayhi salaatu wasalaam di guddi goo xam ne guddi gu màgg la gu kawe yonent bi sunu borom def ko mu gën ñëpp yonent bi mooy seetu àdduna mhm. di seetu allaaxira moom la sunu borom def muy léppi tey di léppi ëllëg kon guddi googu képp koo xam ne mhm. yaa ngi wax ashhadu an laa ilaha illallah ashhadu anna muhammadan abdu rasul mhm. war ngaa fonk boobu guddi kon na ko ñëpp teewee daal mu ngi noonu mooy loolu daal mooy ndigal li ñu ngi leen di sant te di leen gërëm te di leen ñaanal yàlla sunu borom yokk ci barab bii nii di seen TV. amiin borom gën koo barkeel. gën koo dundal. macha allah ñu ngi kontaan ñu bëgg mu ngi ñuy seetaan waxtu wu nekk maam As Mbaye TFM religieux waaye maam As eh, Mbaye asmaulahi alxusna nga xam ni ku yàlla jagleel la ci turu yàlla sunu mag la. Mhm. sunu xarit la sunu confident la. Mhm. ku baax la dama koy faral di wax ni ko eh, eh, ni la yàlla jagleele ci turu yàlla. Mhm. jekku gi ko jekku yàlla na la fa la ci cat maas ñu lay nuyu ñu ngi lay ziare saa su ne lu ñu ne daf ñu ci topp. di ñu jàngal fatiha di ñu jox fatiye di boole ñaar <laughs> ñuy jàngal fatiha ba pare du ñu yónnee fatiha ba pare nekk koo xamante ne te damay faral di wax ni ku namm sa aajo faju yàlla nga xamante ak moom jàmbaar la doomi mag la yëfi mag lay def Cheikh kàddu yu mujj ci émission tay bi la Mouhamed di kontaan rek eh, di sant bu baax soxna Astou bin Cheikh Mouhamadoul Moutada ci taxawaay mu rafet ci njaboot gi waaye itam di sant bu baax eh, sama xarit kenn du yow ci man borom Madina Dieng eh, mbay jéen bu sëriñ am sa bu Cheikh son waaye nag di fàttali waa diaspora le 14 incha allahu rabbi dañ day sëñ Maam Morom Cheikh Mouhamadoul Moutada ni ci Cheikh Mountakha bi nga xam ne mooy sunu jëwriñ maa ngi koy fàttali kon ñëpp sëriñ Mamadou Seck taalibi Baye maa ngi lay ziaré bu baax sëriñ Mamoun Seck di la jaajëfal di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen jox dox daje incha allah rabbi nag Louga fa lay gàmmoo ci sama sëriñ sëriñ Xaadim moom sëriñ Mbàkke Soxna Lo waaye Cheikh Moustapha woote na tef tayib na ko fi ñëpp fekk noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di wax wa axiru daxwana an alhamdulilahi rabbil alamina wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf borom sañse bu rafet bi mu ngi noonu daal dina door ku ne gàmm sa xel daal da dem ci burdu ba tax na burdu bi nga xamante ni ah, day am at mu jot foofu ca farba ca mbedd mu mag nga xam ni mboolem njabootu maam Cheikh Seydil Hadji Malick gépp gép gépp fa la ñu daje yaakaar naa ne tey lay door la 7 incha allah dixième mois euh, oustaz Issa Koli moom moo koy taxawee le 8 dixième mois oustaz Pape euh, oustaz Masila Kane moo koy taxawee on dixième mois oustaz Mansour Seck moo koy taxawee le dix euh, dixième mois oustaz euh, Gora Niang moo koy taxawee le onze euh, dixième mois oustaz Omar Ndoy bu Al Amin moom moo koy taxawee le douze dixième mois oustaz Malick Mbay Bolle moo koy taxawee le treize dixième mois oustaz Souleymane bu Al Amin Diop moo koy wax moo koy taxawee moo koy waxtaanee le quatorze dixième mois oustaz Ousmane Niang moo koy taxawee le. quinze dixième mois oustaz Pam Makhtar Silla moo koy taxawee waaye ci teewaayu Thierno Hamidou baan waaye nag euh, le 16 incha allahu taala nag oustaz Mouhamed mbay euh, moo koy taxawee ci la ñu daal di tëj burdu bi àndante ko ak waya euh, Serigne Samboub ñëpp xam nañu ko alxaaji Njaga Njaay bu Serigne Mansour Sy Jamil Abdou Aziz Ndiaye bu Serigne Sid Ahmed nii lay demee foofu ca mbedd mu mag Farba di ci invité ñëpp képp